Le gel main Valdin, efficace sur 99% des microbes. Val vous offre cette

à la selle, quoi. Et il est constipé. Et comment faire pour mieux digérer Il demande comment faire pour mieux digérer. Et effectivement, il est constipé comme beaucoup de gens pendant le, le ramadan puisque on ne boit pas d'eau pendant une bonne partie de la journée et aussi on ne mange pas, on, on saute au moins un repas, c'est-à-dire le déjeuner. Alors, si à la rupture du jeûne, on ne corrige pas tout ça, forcément on va être constipé. Donc voilà ce que je conseille à Ibra et à tous ceux euh, qui, souffrent de cette constipation pendant le ramadan. Il faut manger au moins un fruit euh, avant l'aube, c'est-à-dire au petit déjeuner ou au khud. À la rupture, il faut manger les cinq dates au moins, euh, ou un autre fruit, mais au moins ça. Et ensuite, au moins un verre d'eau chaude. Si vous, vous n'avez pas l'habitude de boire une boisson chaude comme le café, le thé, le quinquilibre, on peut prendre un verre d'eau chaude et ça, ça active le, le, le, système digestif. Au dîner, il faut garnir au moins un tiers de l'assiette euh, de légumes crus ou cuits, ça dépend de ce qu'on veut, euh, de l'assiette, du bol, de ce qu'on veut. Et il faut remanger au moins deux fruits avant d'aller se, se coucher. et débrouillez-vous Ibra pour boire, euh, disons, à peu près euh, un litre d'eau dans la soirée euh, à raison de, demi-verre d'eau par demi-heure. Et euh, si possible, allez faire une promenade après euh, la prière de Isha ou après le dîner Et tout ça, toutes ces mesures devraient soulager la constipation. On passe à la question d'Abdou. Alors, Abdou demande euh, quels sont les meilleurs fruits pour une personne qui jeûne, mais qui exerce un métier pénible. il ne pas précisé le métier qu'il exerce, mais supposons par exemple que c'est dans la maçonnerie ou dans la construction de bâtiments, etc. C'est pénible et pendant qu'on jeûne, c'est difficile. Donc, la réponse est que dans le cas où euh, Abdou a à sa disposition une variété de fruits. Il faut manger autant de variétés de fruits que possible pour avoir différentes vitamines et avoir vraiment un apport suffisant en toutes sortes de vitamines. Sinon, euh, si on n'a pas euh, cette variété-là, euh, eh bien, bonne nouvelle, les mangues ont, ont, fait leur apparition. Et puisque ce sont des, des fruits qui sont très sucrés et puis on, on trouve des, des, des, mangues de belle taille, eh bien, euh, on peut manger des mangues parce qu'ils vont donner beaucoup d'énergie pour soutenir le travail pénible qu'exerce Abdou. La question suivante est celle de Fatou. Alors, Fatou, elle, nous pose des questions euh, concernant sa maman qui a 60 ans, qui est hyper tendue et à qui on a interdit de manger du sel, enfin, je suppose que c'est son médecin, interdit de manger manger du sel et d'éviter le, le soir au dîner et d'éviter le gras. Et toutes ces mesures-là sont en place depuis huit ans. Et du coup, euh, la maman de Fatou ne sait pas trop quoi manger. Elle mange du tcherekme ou du, du et du lait le soir. Et elle-même, Fatou trouve que sa maman a maigri euh, et qu'elle a perdu ses forces euh, parce qu'elle ne mange pas assez et elle me demande qu'est-ce que j'en pense. Alors voilà ce que j'en pense, c'est que euh, malheureusement, il y a encore beaucoup de médecins qui continuent à donner à leurs patients hypertendus ce conseil de ne pas manger du sel le soir, alors qu'il n'y a rien qui le justifie scientifiquement. Il y a même des patients, qui, des personnes hypertendues, qui s'imposent cette mesure elles-mêmes. Oh, c'est même pas le médecin leur a juste demandé de réduire le sel et c'est elles qui s'imposent de d'éliminer le sel. En tout cas, il n'y a pas de, raison d'éliminer sel au dîner en cas d'hypertension. Euh, euh, la maman de Fatou euh, a besoin peut manger tout simplement le repas familial de, du soir à condition que ce soit salé raisonnablement et qu'il n'y ait surtout pas d'ajout de bouillon cube et à condition également qu'il n'y ait pas de friture et d'excès de gras dans le plat et ensuite qu'il y ait un bon apport en, euh, légumes. Et c'est ça qui va aider à bien gérer son hypertension artérielle. Le, le et le lait, ou le, mid et le lait, n'apportent pas à, la maman de Fatou assez de nutriments, et c'est pour ça qu'elle maigrit et qu'elle perd ses forces. Et on termine avec la question de Fatima. Alors, Fatima dit qu'elle voudrait avoir mon avis sur Ovaltine. pour ceux qui ne connaissent pas, il y a d'autres marques. Il y a Nesquik, y a euh, beaucoup d'autres marques Ce sont des poudres qui contiennent euh, un certain pourcentage de chocolat et euh, souvent qu'on ajoute à du lait pour faire du chocolat chaud. Euh, c'est notamment quelque chose qu'on donne très naturellement aux enfants. Ce qui est important à noter, c'est que ces poudres-là contiennent très peu de chocolat. Par contre, beaucoup, beaucoup de sucre. Et en fait, le premier ingrédient, quand on regarde la liste des ingrédients de ces poudres-là, c'est bien du sucre. Et c'est pareil pour Nesquik, pour Kangoo, etc. Je ne conseille pas euh, la consommation régulière de ces poudres à cause de l'excès de sucre. Et je ne conseille même pas aux enfants. Il faut plutôt, si on veut se préparer du chocolat chaud, il faut plutôt opter pour du cacao à qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Euh, et ce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

asalaamaaleykum mbokk diglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. chronique numéro 217 tey dañuy dem ci suñu page Facebook su Nutrition ngir tontu ay questions auditeurs. waaw loolu la comme ni mu ko faral di defee rek dama jël dama tàmm ñeenti laaj euh, yu ay auditeurs ma nar cee ci rajo bi te ñu ni ñaar ci laaj yooyu euh, ñu ngi laajte ci wàllu euh, li ñu war a lekk ci weeru koor gi. dañuy tàmbalee ak laaju Ibra. waaw Ibra moom nee na ci weeru koor gi dafay faral di seere. lan la mën a def nag pour mën a feere euh, boobu bàyyi ko euh, alors ma ne Ibra dëgg la dañuy ñu bari sax dañuy faral di seere ci weeru koor yi ndax li ñu dul naan ndox duñu lekk te duñu naan ndox euh, ci diiru fukki waxtoog ñeent ak lu topp et aussi parce que ñu bay bu ñu wooree ba ngoon duñu lekk fruit yu doy duñu lekk légumes yu doy donc li may tegtal Ibra ak ñëpp ñuy déglu nga xam ne am nañu problème mu seere boobu mooy Euh, ci xët bi nañu fexe ba lekk benn fruit wala ay ay ay tàndarma bu ñu xasee ba dog nañu fexe ba lekkaat juróomi tàndarma wala ñu lekkaat beneen fruit et puis ñu jël benn kaasu ndox mu tàng bu bu dul wax mu tàng sax mën na ne kenkeriba bu tàng wala café bu tàng montar bu tàng euh, loo xam ne ndox lañ ko defaree bu reer bi ñëwee nañu na fexe Ibrahima yi ak ñeneen ñi ñu def légume ju bari Euh, boo xam ne euh, ci seen ci li ñuy lekk ñoo xam li ñuy lekk bu ñu xaajee li ñuy lekk ñett ñett xaaj ñetteeli xaaj boobu légume kese la war a doon ñoo xam mooy légume ñu togg wala ñu togul te ñu fexe ba ci guddi gi noonu ñu lekkaat ñeneen ñaari fruits ba noppi nag fexe ba naan benn litre ndox luñ ko lu ko dalee ba ñu dogee ba ba ñuy tëddi euh, te ñu wax ne ñu koy ndox mi ñu koy naan par tuuti tuuti tuuti alors li mujj mooy pour que rek seere bàyyi Ibrahima yi ak ñi ko am mooy bu ñu reeree pare dem doxantu ji euh, kenn waxul sport sax mais dem doxantu ji benn benn fanweeru simili waaw ñu jàll ci question bu Abdou. waaw Abdou moom nee na mu ngi ban fruit la nit ki war a taamu ki nga xamante ne dafay woor waaye di liggéey liggéey bu metti alors moom waxul ban liggéey bu metti lay def mais mm, ku gis maçon yi li ñuy daj euh, ci chantier yi rek ci weeru koor bi di nga xam lan mooy liggéey bu metti alors bu fekkee ni Abdou mi am na ay fruits yu bari yu mu mën a taamu maanaam bu demee ci ba jaaykatu fruits mën na fa jënd ay pomme ay banane ay orange ak yooyu yëpp euh, mën na jël jël ci yooyu te lu mu gën euh, yi muy gën parce que bu boobaa dina jot ci ferñeent yu bari waaye su fekkee nag moom euh, tax fuyam yi mu mën a am taxu leen wute noonu Ehm, gis naa temps yi rek ni mango génn na te mango yu neex moo fi am mango di doon fruit boo xamante ne vraiment mën na mën na ko taamu parce que dafa bari suukar su ko defee moom ci ki nga xamante ne dafa woor di def liggéey bu metti su dogee kooram lekk mango daf koy jox kàttan te daf koy gaaw a jox kàttan ndax suukar bi ci nekk. question bi ci topp mooy bu faatu. waaw faatu moom dafay laajte laajam pour yaayam nee na yaayam mi ngi am juróom ña benn fukki at te dafa dafa am tension. Euh, mais ci tension boobu la ko xam naa docteur am tere muy reer muy reeree lu am xorom wala di lekk xorom ci guddi gi ci buy reer euh, et puis mu nekk aussi na moytu lépp loo xam ne dafa ñiin te yaayu faatu moom lii mi ngi koy def depuis at mi ngi topp li ko docteur wax waaye euh, bu guddee comme buggul lekk lu amul xorom dafay lekk cere ak meew et faatu mi moom dafa gis ne yaay ji mi ngi gën di jeex ak di gën di ñàkk kàttan di ma laaj nag moom lan laa ci xalaat ma ne ko nag Fatou euh, ñu bari médecin yu bari ñu ngi continuer di wax seen euh, seen maladie am hypertension na leen nañ bàyyi xorom ci guddi gi te loolu pourtant du tegtal bu ñu war a tegtal et en plus am na ñoo xamante ne sax même bu ñu leen ko tegtalul ñoom ñooy bàyyi xorom guddi ñoom ñoom ñoo koy bàyyi seen bopp en tout cas amul dara lu koy justifier scientifiquement et ki nga xamante ne dafa hypertendu li ñuy tegtal mooy na rek wàññi xorom ci bés bi yëpp buy ndékki na wàññi xorom buy añ na wàññi xorom buy reen na wàññi xorom su ko defee faatu mi li ma koy conseillé mooy yaayam li ma koy tegtal mooy yaayam nañ ko jox ci reeru kër gi ñoom ñu profité waale reeru kër gi buñ ci def benn wala añ bi aussi buñ ci def benn euh, saf-safal bu am xorom nañ ko rek def seen xorom bu simple ci reer bi naka noonu ba noppi nañu fexe ba euh, ba reeru yaay ji na bari légume parce que loolu day wàññi tension Euh, et puis euh, ñu bañ ko jox ay fiiriir wala ay soos yoo xam ne dafa bari diw parce que cere ak meew boobu Euh, du jox euh, ferñeent yi yaayam soxla yaayu faatu soxla pour que mën a am kàttan moo tax muy nekk fii di jeex. laaj bi ñuy jeexalee nag mooy laaju Fatima. waaw Fatima moom dafa bëgg a xam na lu ma xalaat ci Ovaltine alors pour ñi nga xamante ne xamuñu Ovaltine Ovaltine ak yeneen nag yeneen euh, moromam comme Nesquik wala Kongu yooyu mooy poudre yooyu nga xam ne dafa am tuuti chocolat ci biir ba noppi ñu koy jël di ko def ci ay meew di ko jox xale yi wala am na sax ay mag yu koy def aussi mel nii rek ku jëloon café café def ko ci ci meew bii nag moom poudre la pëndëx la boo xam ne dafa am chocolat ci biir alors li ma ci xalaat mooy ne Ovaltine nag euh, Nesquik ak Congo yooyu yëpp li li gën a ëpp ci ci yooyu poudre ay ay kii la euh, suukar la maanaam dañu bari suukar su ko defee man euh, tegtaluma kenn li may tegtal mooy nit ki daal mu bañ a jëfandikoo faral di jëfandikoo yu mel noonu euh, bu fekkee ni dañuy bëgg def meewu chocolat wala chocolat chaud comme ni ñu koy waxee ci nasaraan li may tegtal mooy ñu dem jëndi cacao cent pour cent maanaam chocolat la boo xamante ne chocolat kese la pour de pëndaxu chocolat rek la dara raxu ko def yu ci benn suukar bu boobaa loolu moo gën ci wér gu yaram. page Facebook alors page Facebook yi mooy Sud Nutrition. ñu leen di ñaax rek ngeen ñëw def comme euh, ni ñu ko defee nii euh, muy doon Ibra euh, Abdou Fatou ak Fatima ngeen laaj ñu seen seeni laaj et puis soo leen bëggee ngeen suggéré ñu ay thèmes aussi pour Sud Nutrition et xam leen ni suñu chronique passée yëpp ñu ngi ko posté ci page bi. may jaajëfal Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Rosalie. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen doon may Sud